jërë ngeen jëf ci seetaan beeg topp bi asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu yéen ci seen seen HD 221 TV xibaar yi ci gàttal ñu dooree ko ak avocat Ousmane Sonko bi ñuy dippee Juan Branco moom moomu kat daanaka rek ni ki tey ji la waroon a nekk foofu ci diwaanu Sénégal ndax kenn umpalewul ne tey jii la procès Mame bay Niang ak ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko ci noonu nag ñu nemmeeku ne avocat bi gannaaw ba mu uh, teewee foofu ca diwaanu aéroport. Euh, Blaise Diagne bu Ndakaar euh, euh, bu Dias moom moomu kat daanaka dañu ko dëppaatal rek ndax nee nañu daal bu mu teg tànkam foofa ca diwaanu Sénégal la bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataango waa Sénégal set ñoom ñooñu kat dem nañ fuye bu baax a baax lan moo waral mbir mi lañu ñu ca xam ne du leen rek lu dul avocat bi daanaka rek doon posté kat ci ab page am ay wax rek jëmale ko ci nguuruk Sénégal wax na ni Sénégal daanaka rek amul benn yoon li ñuy wax démocratie wax na tamit jàpp yi nga xamante ni ñu ngi koy jàppaatee ci non tamit waxna ay meurtre yo xamanteni mi ngi am fofu ci diwanu senegal muy ñi fay gañu ba évoquer sax atop 2021 muy mars 2021 fukki bakkan ak ñent yi nga xamanteni roton na ci manifestation yu doon amal ba tay rek ci mbirum Ousmane Sonko ci non nak ñu ku ne niki 14 mars bi ñu wessu ci la poste yooyu yep di ŋàññ bu baax baax réewub senegal loolu daal la ñu yaakaar ni moo tax bi mu tegee tànkam foofu ca aéroport ñu daal di koy euh, dëppaatal daal di koy euh, dàq mbokk yi li moo nekkoon ni gënoon a fees ñu ngi leen di ñaanal jàmm di leen jox dig daja ba ca kanam incha allah.